alhamdulillah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 إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين bi yàlla dogalee ñu amoon ay yéene yoo xam ne dafa jëm ci jàppale daara ci jamono yi jafe-jafe di ci yëngu di ci def seen kéemtulaay kàttan ba yàlla dogal yëngu boobu dem ba xel ya xalaat yépp rafetlu na yëngu la boo xam ne daa war a jëm kaw waaye daa war yaatu ba jëpp jëpp bokk ci mu ñëw waxtaan ci ak sëriñ maam Cheikh Anta sëriñ bi ku ne xam ne ne yitteem ak yëngoon lépp mooy alquran ak liggéeyal alquran du ci tay du ci sonn du ci noppalu lépp lu alquran laaj jotam moom may na ko xam naa ne dama koy fàttale ko la Sëriñ Tuubaa waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne sunu borom bu ma téelee ruu gi ci yàpp yaram yi jom ngor gi moom lu ñu ko teg mën na ko waaye moom itam coonoom ak yitteem lu ko alquran tegoo rek feeg wiir gaa fi mën na ko su ko defee kon bi loolu ci cheikh Mouhamadul Muntaxa laaj ko ndigal ngir taxawal kuréel goo xam ne la ko tax a jóg mooy jàppale daara ak fu daara nekk seen yéene mooy suñu sañoon daara ak ñooñ daara dootuñu am coono ci kaw suuf nit ñi dañ leen dañ leen di ñeewaay du ñu ñeete loolu nag biñ ñu ko gaaralee sax Mouhamadul Muntaxa bég na ci lool def ci ay ñaan ñu dem ci mbooleem kilifa yi ci yoon yi kuñ demagut ci moom xëy na dañ fa yeggagut waaye li ëpp ci kilifa yi dem nañ ci ñoom te liggéey boobu it ña ngi ci bàyyeegunu ko biñ ci jóge it sëriñ bi gis ne dañoo nekk ci jamono joo xam ne jamono dafa am nu muy doxee soo jógee ngir taxawal kuréel goo xam ne day dox ba faw te fas yéenewuñ mu taxaw dañ koy teg ci eh, cëslaay loo xam ne dana mën a dëgër kenn na du ko yàq ndax ku ne xam ne ne saa su nit jógee ngir yëkkati lu baax am na noonu yàlla yoo xam ne taxaw nañ ngir gàllankoor ko loolu moom ca bay baax di am ba léegi loolu moom du fi dañ fekk mbaax mu ngi fi am rek ay noon yi jóg di di contre mbaax di am waaye ñu jaarale ko kon jóg ne kon na lijjanti fexe ba am benn këyit bi ñu tuddee récépissé mu ànd ceeg sëriñ xaadim ak ñim ci ànd ak ñoom benn ak bay moor def ci ay yitte dox ci suñu borom sottal ko ba mu am récépissé gannaaw loolu nag ci la tàmbali di def ay yëngu di yaatal kuréel gi ci mbooleem gox yi ci réew mi yëpp ba ci bitim réew fu ne kuréel ga ma ngi fay dem di ko yaatal ngir alquran gën a jëm ca kanam ku ne xam ne xam ne ne moom naka jekk mu ngi ci kanam waaye nag alquran gën a jëm ci kanam ndax wolof yi dañuy wax ne alquran bëri ko buñ teg ci mbartal la boo boo bërëngee mu dem boo bërëngul mu dem waaye nag bokk ci ña koy bërëng la ca am solo lool rawatine koo xam ne da ngaa bokk ci kër Sëriñ te xam ne Sëriñ Tuubaa dundam ak yëngoom lépp. mooy alquranul karim war nga am aw laaj wu woo xam ne danga ko bàyyi ci alquran ngir liggéey liggéeyalee ko Sëriñ Tuubaa loola moo tax mu moo muy yëngu boobu moo yóbbee maam Cheikh Anta ak ñi mu àndal ñu jóg ngir liggéeyal alquran waaye ngir jëfit ndigalal borom bi subhaanahu wa taala ndax borom bi subhaanahu wa dafa waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko innahu la zikrun laka wa li xawmika wala sawfa tusalun yàllaa ko jox yonent bi jox ko aw nitam waaye dana leen laaj ëllëg nak lañ doon sàmmi alquran naka lañ ko doon téye kon ñu bokk ci liggéey boobu ko defee muy loo xam ne ku ne xam ne ne sëriñ bi nee na barab bii nga xam ne moom la ñuy fas yéene def ci ay naal barab la boo xam ne alquran moo ko moom du barab bu kenn di doon dañ koy tabax muy daara joo xam ne yéene jën ci am. mooy mu doon barab boo xam ne barab bu jamono la boo xam ne lépp luy barab di am ci bu ñu liggéey la yàlla war a barabu daara dana ko am di barab boo xam ne mbooleem bu sëriñ daara tumurankee sax ñëw amul fu mu nekk bu ñëwee am na possibilité du dëkk nekk ci kër gi ndax kër alxuraan la kenn moomu ko kon yéene ji mooy lool muy da tabax mooy yëkkatil yàlla ab néeg ku ne xam ne ne tabaxal yàlla daaray alxuraan mook tabaxal yàlla jàkk ñoo yem wàccuwaay ndax day dugg ci sadaqatan jaariya muy barab boo xam ne ki koy def da koy def rek ngir jëmi suñu borom muy barab boo xam ne dañ fay daje ji jàng alquran di ko jàngale ak di yare ak di fa saytu nit ci lu jëm ci wàllu lislaam di leen nàmpatal loolu mooy yittey sëriñ bi loolu mooy jubluwaay bi sëriñ bi wax na ne yéeneem ak yitteem mooy bu ba bu demoon ba doon ay milliards yuy dotteeku ci poosam jomm na cee lekk lu toll ni nga dëgguru liggéey lislaam rek ko ñor ak liggéeyal alquranul karim kon alquran googe nag nga xam ne moo ñu fi dajale tey jii barab bii ñu daje de bokk na ci barab yi nga xam ne tey barab bi bég na ngir puukarewu ñi nga xam ne ñoo fi daje te loolu daa bokk ci waxi sëriñ Tuubaa radiyallahu wax na ne ki nga xam ne day dund ci alquranul karim bu demee ci barab bu bees benn bu demee gane ji ci barab barab ba day bég ci moom di puukareew ci wàcc gi fa wàcc man bi ka laa zaqaafahu saytaan wa sarrahu almawdiha wal awtaan sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu nee na képp koo xam ne làqu na ci alquranul karim seytaane day tiit di ko daw di ko ragal te bépp barab bu mu wàcce barab boobu day bég ci loolu di ca kontaan dëkk bu dëkk bu mu dem doon fa dëkk bu day bég ci moom di kontaan ci moom su ko defee loolu muy yëngub sëriñ bi nee na mu ngi xam xamle mboolem ñi fi teew ñëpp ginnaaw bi mu sàkkoo seen ñaan di xam ne liggéey bi daal liggéey la boo xam ne liggéeyal sëriñ Tuubaa ci lislaam waaye liggéeyal sëriñ Tuubaa ci alxuraan rekk moo tax ñu taxawal waaye du leneen ñépp ci yem wàcc waay amul xej yi amul seen barabu alxuraan la ñooñ alxuraan ñoo ko moom képp ku yëngu ci alxuraan daal na nga xam ne barab bi sa barab la kon loolu mooy sabab bi ba tax ñu taxaw fii ngir yëkkati fii benn néeg wala benn barab boo xam ne alxuraan rekk ko tax a jóg benn xakim nag dafa waxoon wax ju am solo def ne ñett yi xawma lu ko gën ci kaw suuf nee na xakim bi dane képp mana képp kuy waxtaan lépp bépp waxtaan wooy mën a dégg waxtaanu yàlla moo ko gën a neex te mooy alquran karim nee na itam bépp liggéey boo xam ne nit a koy liggéey nee na liggéey boobu ba ci gën a kawe mooy liggéeyal alquranul karim alquran nag ku ne xam ne Serigne Touba wax na ci lu yaatu yaatu yoo xam ne loolu moom du xaj ci jataay bi waaye doy na ci rek Serigne Touba ne kanzil kitaabu wal hadiisu wan adab laa jamu zahabin wala jamu fidda fidda nga xam ne dundam lépp mooy alalam la gën a ca moom sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu sëriñ mooy alquran ak xam-xam ak teggin boo demee ci beneen wax sëriñ bi sëriñ bi nee na ñett ñett moo tax mu ñëw ci àdduna te li mu fan yi mu am ci ci àdduna it ñett yooyu moo ko fi bàyyi woon mooy ligi sàmm alquranul karim ak sàmm sunna si yonent bi sallallaahu ak jëriñ yi sëriñ Tuubaa nee na bu doonutoon ñett genn guddi duma ko am ci àdduna kon nag loolu mooy dund boo xam ne mooy dundam sëriñ bi dundam lépp alxuraan la woon yëngoom lépp alxuraan woon kon bu ab sëtam jógee taxaw di ubbi ay barab ak ni jamono mel nga xam ne kenn ku ne la nga am xeeb nga ko di wutloo ci lool yi ñii ngay tabax ñii ngay wuti kaat kaat ñii ngay wuti leneen lu jëm ci àdduna loo xam ne dana tax ñu leen ko wala ñu ñu ñu di leen ko ñeewee moom lu am jël ko def ko ci alxuraan kon ngàcc nga laa mu sëriñ bi wàcc na mos la maa wax boo wax boo xam ne wax boo marqué la wax mos la maa wax ne ma sama dund fas yéenoo ma fanaan ci kër gu daara nekkul kër gu ma am bala ma am jàmm daara dafay nekk ma soog faa mën a fanaan man faa tëdd nelaw kon nag loolu moom dellu na buum ca boy boy ba soo ko defee kon moom itam ñu ngi koy ñaanal bu baax sëriñ bi nag nee na eh, bis bii nga xam ne moom lañ tànn dañ cee taamu woon weeru koor ngir yëkkati ci eh, teg ci xeer bi muy loo xam ni xaw na jàmp ba ñi ko war a yëg ñi bari bari yëgunu ko waaye nag lii am naan la bu ñuy door a tàmbali boo xam ni du liggéey boo xam ni sëriñ bi nee na dañ koy sànjaaf lii ñuy wax ne tooba tooba bayal mbaa ma ma ma ma ma buddi xawma nee na dañ ko fas yéene tàmbale di ko liggéey ci te bakkan ba yéene jiñ ci am ak naal yi mu mel nañ ko bëggee ci kàttanu alxuraan ci barke sëriñ Tuubaa kon nee bis boo xamee ne yàlla dogal na ñu jublu ci dëgg-dëgg liggéey bi incha allah danañ ko gën a yaatal ba mbooleem ku ko yëgutoon yëg ko. moom sunu boroom dina wéyal ak leeram donte sax ñi ko weddi maanaam seeni pexe jug nañ ngir jéem a fay ak leeram moom yàlla dina wéyal ak leeram dina mottali ak leeram wallahu mutimu nuruhu walaw kara al kaafiroon kon mu mel ni feebar bi nga xam ne xewoon na fi bu yàggut laal lépp réew mi laal lépp lislaam bi laal daara yi laal jàkka yi laal jumaa yi laal jullit ñépp mu mel ni boo xoolee bu dee ci wetu suñ boroom bi ñun jullit ñi gëm dañuy yëg ni liikat am nattu la di musiba mu bàyyee ko ci boroom ñun dañuy delluwaat rek ci ma asaabi min musibatin ilaa bi isnillaahi wa man yu'min billaahi yahdi qalbahu wala bi kulli shay'in alimun dañuy jàpp ne rek musiba bu bàyyi ko la ci suñ borom mu wàcce woon ko fi waaye ñi nga xam ni nag eh, dañoo doon ñu weddi yàlla mooy walaw karaxal kaafiroona ja nga xam ne ñoom lu ne dañ ciy bëgg a profité ngir faagaagal lislaam mel na taxawoon ci maanaam tëj daare alxuraan ak donga yi ci daare yi nga xam ni maanaam dañuy génn di yalwaani di dunde te loolu di cosaan loo xam ne mag ñi ñoo ko defoon di cosaan loo xam ne mag ñi ñoo ko defoon di cosaan loo xam ne mag ñi ñoo ko defoon ngir mën a jàngal njaboot gi ak yar leen ba bu ëllëgee jikko ji nga xam ni yàlla da ko gërëm muy agréé du nekk ci ñoom loolu nag bi mu amee tax lenn ci daara yu baree bari dangay ngay gis sax euh, maanaam koo xam ne ndeysaan bi mu déggee mbir mi rek la daal di tëj daaraam ndax yaakaar ni danañ ko fa fekk booba nag ci lañu gis ni kat yelwaan yi ginnaaw tere nañ ko donga yi kon solution mënta ñàkk léegi ñu ni nañu waxtaan ak waajuri donga yi ak mboolem koo xam ne jaaroon na ci daara ji mbaa muy soppeeb alxuraan boo xam ne am na yéene jàpp ci daara ji ñu fexe ba yor gone yi ci biir daara ji nga xam duñ tëj daara ji te duñ génn di yalwaan ñu fexe ba yor leen gone yi man di jàng di dund ci biir daara ji ñu ni kon solution boobu nan la ñuy def ñu ni kon dañuy def képp koo xam ne rek am nga yéene ak pas-pas jàpp ci daara ji da ngay def weer wu dee nga joxe 1000 francs bi nga xamee ni wax nan loolu ñu ne ah ñenn ñu ne ah loolu de tuuti na man leen ah déedéet tuutiwul ndax boo bëggee yëkkati loo xam ni ñëpp da koy àttan day woyof kon mil francs bariwut nañ ko def 1000 francs loola nag bi nga xamee ni yàlla dogal na nu tàmmali ko waxtaan ci ak waajur yi donga yi ak donga yi génne woon ci daara ji ba tàmbalee man dara ak ñenn ñi nga xam ne ñu ay soppe ñoo xam ne fépp fu alxuraan nar a tumurankee rek duñ ko seetaan biñ ci waxtaanee ñoom tàmbali liggéey bi rek di ko doxal di doxal liggéey bi lu ñu dajale lépp dara du ci génn duñ ci def dara dañ koy jënd ak dund jox donga yi nga xam ne donga yi ci lañ nekk diirub kufur fa bi yëpp yalwaanuñ loolu yor leen ah bi nga xamee ni yor loolu loolu loolu noo ngi koy doxal di ko doxal di ko doxal ba sëñ maam Cheikh Anta mu baax mii ñëw ca ca dëkk ba fa daara ja nekk gane si fa ab xaritam ab taalibeem ab soppeem bu baax muy Baye Modou Ka Baye Fall bi mu ñëwee fekk Baye Modou Ka moom ci waajuri donga yi ndax ak njabootam ñoo ngi ci man ñenn ñi maa ngi leen yóbbu xel koom ci tubaaxel xelkom ñenn ñi ñoo ngi ñoo ñoo ngi ci daara ji jàng ci gone yi bi mu ñëwee ñu waxtaan ak moom ci liggéey bi Euh, ci yéeneem ju mu yéene ak bëgg gu mu bëgg alxuraan ak am gu mu am yéene ci képp koo xam ni ku nekk ci alxuraan nga mu ni boobu liggéey de dama bëgg ngeen dugal ma ci dama ci bëgg bokk lu ñuy dajale di ko toggal dongo yi di jàng alxuraan man boobu liggéey bokk naa ci daal di yëkkati douze mille jox ma ko ni ma bokk naa ci ma ne ko ah loolu de nun mbàkke maanaam baax na lool waaye nag nun moom suñu kilifa bu nu ko gisee lépp lu nu yoroon dañ koy jël teg ci loxoom fas yéene topp ci ginnaawam nun alali sëñ tubaa lañ ju nekkal sëñ tubaa fii di ko liggéeyal ndax yàlla dogal na dëkk ba sëñ tubaa moo ko sanc woon sama maam maam Boubacar Fall Pendeyeer yi da ko jële pir ko boo amee ay tool demal sanc ko mu ne ko naa ay tool ca wetu Tiwaawan mu ne ko demal sanc ko sëñ tu sëñ tubaa jox ko suuf ñaanal ko sama maam ci dëkk ba sëñ tubaa ganesiwaat ko fa mu jox ko doomam bu ñuy wax soxna xari Penda amoon na ci kër sëñ bi juróomi bant yaakaar naa ñu bari ñuy gëstu ci yoonu murit xam nañ ko soxna xari Penda Fall ak njabootam ñenn ñoo ngi Xuru Mbàkke ñu ni ko kon nag dëkk bii moom ak ñun ñii ak lépp sa njaboot lañ sa alal rek lañ kon nañuy def mooy jël lépp ak waxtaan ak ñëpp ñu jël lépp teg sa loxo topp ci sa ginnaaw mu ni ci mbaaxam ak maandu teem ak ragal yàllaam mu ni kon nag lii kat comme dafa nekk liggéey boo xam ne ñu ko seq dafa bari te it nun yoonu murit genn kilifa moo fi nekk muy Cheikh Mouhamadul Mountakha kon dañuy dem ba ci sëñ taxa ñu daal di def délégation bu fekk soxna Faati Mbàkke bi moo jiite yaayu daara yi ñu ànd ñun ñëpp fekk naka jekk daara ji dañ ko rëdde woon noo xam ni donga bu ñu mus a jàngal ba mokkal alxuraan kaamil ba kaamil ba muy njëkk a bind dañ koy jébbal ki fi nekkal sëñ Tuubaa fekk jamono yi am benn donga bu bindoon kaamil bu ñuy wax Ibrahima Kayta maanaam ñu waroon a yóbbu kaamil bi ñu ànd ak kaamil bi ak sëriñ bi ba ci sëñ Muntaxa ñu toog lii ma wax ma leeral ko sëñ Muntaxa ni ko taxawaay boobu kat la ci sëriñ bi am ak am ci nu ñu yéene ñu nit ñu jël lépp fas ko yéene jox fas yéene doon ay dongaam topp ci ginnaawam liggéeyal maamam ànd ak moom liggéeyal maamam sëñ Tuubaa ah, sëriñ bi rafet na ko lool sëñ Muntaxa jox ko ci ndigal sëriñ bi rafet rafetlu ko lool jox ko ci ndigal mu daal di jub nag daal ne ma nañ dem kër sëñ Mourtada ci sëñ Maam ñu ànd dem ci sëñ Maam Mor àndee dem ci sëñ Maam waxtaan ak moom sëñ Maam rafet rafetlu ko lool wax ca wax ju rafet ba wax ni 1000 francs yooyu na ngeen ko fonk ndax loolu mooy tax. liggéey bi mën a am ak jàppandal la moom bu ngeen ko fonkee te taxaw ci te yaatal ko mooy tax liggéey mën a am ak jàppandal mu xam ne nag mu noonu comme noonu dañoo bokk ci sëriñ Saalihu Mbàkke mu ni ma nañ dem ci sëñ Seexum sëñ Saalihu ñu ànd dem ba ci sëñ Seex ñu toog ñu leeral ko sëriñ Seex sëriñ bi rafet rafetlu ko lool bëgg ci lool ci liggéey bi bi nga xamee ni loolu am na ñu wër nag njabootu sëñ Tuubaa gi dem ci sëñ Maam bi nga xam ne moo fi nekkaloon moom sëñ Fallu mu fi nekkaloon daaree ca yooyu jamono yàlla yàlla yokk leeram te dolli ak njéggalam te nangu mboolem lu mu mës liggéeyal maamam Serigne Touba ak lu mu mës jaamu yàlla yàlla ko yàlla nangu waxtaan ceeg moom mu rafet lu ko noonu lañ ko yaatale ci mbooleem këri sëñ Touba buntu këri sëñ Touba yëpp buntu kër bu ne ñu dem ca. dem ci bunti kër yi seexi sëñ Tuubaa yi ñu njëkk ca kër xalifa bi muy sëñ Cheikh Jëmb moom it yàlla yàlla yokk ay leeram mu rafet la ko bég ci ñaan ci noonu lañ wàcc sa ci mboolem eh, njabootu ko maam Cheikh Ibrahima Fall gi bañ agsee ci sëñ Cheikh ndigal nag la wax ni liggéey boobu kat damaa bëgg jiital ci sama addiya muy koorug daaw daal di yëkkati kër gi ni maa ko joxe addiya alxuraan ci liggéey bi na dem ci liggéey bi sëriñ bi it foofa la jaayantee moom sëñ maam Cheikh daal di wax ni kër gi day kon fas nañ ko yéenee def mu doon kër gu alxuraan goo xam amul ndondo baat boobu la njëkk a wax ni doo doon luy doon alxuraan la koy moom ba abadan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi ki fi nekkal Serigne Touba muy sëñ Mountakha di rafetlu taxawaayam bu baax li may faral di wax rek yoon wi mës sa màgget waaye na peq ci pas-pas ak ci pësteef ak bëgg a liggéeyal ak yonent bi ak bi ci xam-xam ñu ngi rafetlu taxawaayam bu baax di ñaan suñu borom doli koo dëgëral. di rafet lu taxawaayu sëñ Mamor mu Cheikh Mamadou Mourtada damay faral di wax ne jàng ak jàngale def na ci lu yaatoo yaatoo yaatu waaye ñu ngi nuyu bu baax di ziyaara kilifa yi fi teew yëpp muy sëñ Saliou mu Cheikh Mamadou Mourtada sëñ Abdoul Ahad sëñ Amsa mu Cheikh Mamadou Mourtada sëriñ maam sëriñ mu Cheikh Mamadou Mourtada sëriñ Ñoohin ak kilifa yu bari yu fasantikoo Cheikh Abdoul Ahad tudd naa ko defe naa sëñ Baye Galas mu sëriñ Saliou Baye Fall teewal fi ndindi gépp ak mbooleem kilifa yi jëwriñu daara ji sëriñ Xaadim Guèye seen sëñ Ben Amar secrétaire général ak ah, waaw mbooleem kilifa yi nga xam ne tegal ma sama mbooleem kilifa yi nga xam ne mboolem kilifa yi nga xam ne teew nañ mënuñoo tudd ñëpp waaye ñuy nuyu kilifa sëñ am satum sëñ ablaat ñuy nili ki kilifa ndindi muy euh, sëñ baraka euh, xalifa bu cheikh mamadul fadl xanaa di tàmbali rek bismillahi rahmaani rahim inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu la xaafizun waaw buñ alxuraan ca kanam aaya boobu rek lay dëggal suñu borom moo wax ci suratul xijri ci aaya juróom-ñeent ne moo wàcc ci alxuraan moo koy sàmmal boppam. bi nga xamante ne man dama am tawféew Cheikh Mamadou Mourtada moom waxoon ne deel jàngale ñu lay bayal moo taxoon ñu samp ay def nañ gañin maag def sànjara def yëpp. Euh, am na benn seere bu gàtt boo xam dinaa ko seere sëñ Mourtada sëñ Abdou Fatah mii jiite social tubaa ci kanam seere la ci Cheikh dul Mourtada nekk fii ci kër gi ci jumaa ji. Euh, mu ne ma ah, pàkk yooyu ci ndaam ndax am nga ci ma ne ko ah Mbàkke dafa mel ni am na benn ndaw kunda bu pàkk buñ ma joxoon xaw na ko sàkkal pexe mu ne waaw jox leen ko yéen ñi jàngale alxuraan sax moo gën di ko jox ñu koy jaay ak weeru koor wi nii la ko waxee ca boobu taxawal gu ma benn daara kon ñoom dañuy gis lu ñëwagul kon bi mbas mi amee daara yi am jafe-jafe ca ku tedd ki ne woon ñuy jàppale daara yi moom sëñ Muntaxa fekk kuréel gii sëñ Xaadim Géey ñoom ñi ak waa Dakar yi ngaay dëkk yu bare bare rek def kuréel di def kemtulaay kattam la ñu mën xaj na sax kuréel googu xawoon naa am tuuti ay xat-xat waaye nag bi ñu ma ko waxee dama ne leen ngir mu dox li ma xam moom mooy yaatal ak teg ci aw yoon. ñu dem ci mbooleem kuy kilifa daaw ba ren daal liggéey bi dooragul day doog door daaw ba ren dañoo nekkoon ci di yëglu wat gaal yëgoo àgg ci mbooleem kilifa yëpp kenn ku ci ne jox la ci sa wàccuwaay ndax lii day loo xam ne ñëpp ci yem wàccuwaay kenn moomu ko bàyyi kenn amul kër lii moom alxuraan la daara jii ñu tegit ni ma ko waxee fas nañ yéene def ko muy kër gu nga xam ne dina mën a daloolu baree baree bari jarul sax ñuy def plan bi ndax gannaaw mbir mi dafa xaw a bette nga xam dañoo naroon tey bàyyi ba am wari ba am ay fan yaatal ko Sénégal gépp teew ñu leeral li ci nekk bis euh, bis bu rafet bi ñu doon dabu rek moo tax bi ñu sëñ bi joxee ndigal rek moom sëñ Muntaxa ñaanal ñu ci rek lañ daal di jóg rek ne nag léegi gisuñ leen lu dul te xeer bi rek ndax loo tàmbaliwul doo ko eggalee loolu moom moo waral ñi ko war a yëg ñëpp sa xaj na yëguñu ko waaye ñi teew rek mel na ne teewal nañ ñëpp waaw ñu xam ne daal daara ji kenn moomu ko amul tariixa amul moom alxuraan ko moom amul donoo amul dara ak ëllëg euh, daara ju kuréel gi tabax euh, taxawal ci àdduna ak ci Sénégal kenn moomu kuddul alxuraan ak ñooñu alxuraan maanaam ni kër Sëñ Tuubaa yi demee rek këru alxuraan yi bii benn la ci waaye beneen bu ñëw ci nekk këru alxuraan goo xam ne alxuraan ci kanam moo ko taxawal nañ xam ne kenn moomu kuddul alxuraan ak ñooñu alxuraan fas nañ yéene moo am ay barabu liggéeyukaay dàquñ ba ci ay tool yu mag dàqul ba ci ay commerce dàquñ ba ci ay usine dàquñ ba ci lu mën a am kenn moomu kuddul alxuraan ak ñooñu alxuraan waaw loolu daal lañ bëggoon leeral xam naa waxtu wi xat na tàng na ci kilifa yi war ki waaye lii daal ñu xamee ko noonu ñu xam ne daal fii moom barabu alxuraan la. waaw fas yéene mu taaru siège social bi la nga xam ne wàllu euh, dalukaay yu ñi yor liggéey bi ak ñi xam ne ñooy jàngale alxuraan ak képp koo xam ne day dongab daara bu dox ba nar a jaaxle wala yu mel noonu mën na fee fanaan alxuraan daal la ko moom. waaw du lu ñuy doon fas sañ yéene fii yëkkati ko dàq ñu ba bu doonoon juróom-ñaar ci kaw étage wala juróom mbenn wala juróom juróom na doon loo xam dal daaraa ko moom rek. bu buñ jëndee dolli ci def fi ay tool def fi leneen daara moom ëllëg feneen fuñ ko ubbee daara moom waaw loolu lañ ñëwoon ñu sànni ko ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kilifa yu tedd yu sell yi fi ñëw yëpp wax dëgg yàlla dolli na suñu yaakaar ca xam nañ ne surtout nag xataayu euh, koor gi ak ñetti fan rek lañ ko waaj kon defe naa ne Sénégal gépp dinañ fi daje waaye ñu xam ne daal liggéey beet Sénégal gépp ngi ci biir gépp rek fépp lañ dem ca fuñ fi dem dañ koy gën a bëgg ñooñ jóge ñëpp jënd nañ carte membre jàpp nañ ci ñaan nañ ci jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala dolliwaat kàddu yu cant ci Serigne Cheikh Ndigal Fall ndax bi ñuy wër kilifa yi ba àgg ci moom ci la yëkkati fii muy ñaari pàkk yu miir ba àggal def ko addiyee alxuraan kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm waaw fan yi rek bi ñu gisee maa ngi ko ci soñaat di ko fàttali waa fukk la waxoon ci yoonu yoonu yoonu Daaru Muxti wi waaye bu ñu nee alxuraan ca kanam ah alxuraane ci kanamu dëkk bi ba tey rek eh, macha allah jërëjëf. di am mbégte lool ci teewaay bi ñu teew fii di maanaam eh, ñaanal sëñ maam si xanta yàlla suñu borom may ko ci ndab lu kay njort lool te it ñaan jullit yëpp ànd ceeg moom ndax lii moom mel na ni liggéey baayam bala Euh, jëmale kanam rek mm-hmm. moo tax kon yéen yàlla suñu borom dolli ko ci jàppale bu baax a baax ci saahir ak baati barke Seexul Xadim mu ngi nuyu mbokk yi fi teew lépp tàmbalee ko ci maanaam tàmbalee ko ci ki nga xam ne mooy sëñ Abdul Ahad mi nga xam ne mooy magam ak sëñ maam Cheikh maanaam ñu ngi nuyu ñoom ñëpp di nuyu itam sëñ Saaliwu mi nga xam ne ni ku xam école sëñ Mourtada yi taxawaay yi mu ci am yëpp mm-hmm. maanaam su yàlla dogalee mu ñëw ngir teew si fii ànd ak magam ji sëñ Abdul Ahad ba teg xeer wi nii ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha lii dal nam xel yal na yàlla sunu borom gën koo jëmale kanam ba fan bëgg mu yegg yépp mu yegg fa te lépp yal na yàlla doon lu yàlla gërëm yonent bi gërëm ko Serigne Touba gërëm ko. liggéey bi moom yaakaar naa ni képp koo xam ne nii nitu diine nga war nga cee dëkk war na cee sant tim maanaam sëñ bi lii moom du hasard ci moom ndax. ku nekk ci diggante sëñ Massamba ak Cheikh Mouhamadou Mourtala yaakaar naa ne buñ ne mooy taxawal alxuraan ci kanam jàpp naa ne nit ñi war nañ ci war nañoo xam ne loolu aw sasam la woo xam ni moom ku ci nekk moom nga moom ci moom nga ciy dimbale maanaam alxuraan moom képp koo xam ne nii nekk <laughs> ci diggante boobu moom moom moom nga moom moom ngay dimbale maanaam diggante sëñ sëñ Massamba ak Cheikh Mouhamadou Mourtala jàpp naa ne ñaar ñooñu képp koo xam ne yaa ngi seen diggante ñu ne la yaa ngi dund yaa ngi dundal alxuraan ñëpp danañ xam ne loolu warteef la kon nag lii nga xamee nii nii yàlla dogal na nga def ko sa xol bëgg ko di ko jëfe ba ñëpp xam ci sak sak sa pas-pas ak sak takku yàlla mi nga xamee nii nii lépp lu doomu aadama di yëngatu moo ca jàpp yàlla na la yàlla jàppale yàlla na la ci yàlla defal ndam lu rëy rëy rëy lépp loo xam ne ni daal mébét nga ko ci yéene ko ci sa xol loolu yàlla na la ko yàlla defal ci barke ñaar ñi nga xamee nii ñoo la seq muy Cheikh sëñ Massamba ak Cheikh Cheikh Mamadou sant suñu borom bu baax di julli ci yonent sa sallallahu alayhi wa sallam di sant sëñ Touba mi nga xam ne léppam alxuraan la woon alxuraan la tegoon ci kanamam moom la jiitaloon ci léppam léppam moom la daan tegtaloo ku mu am itam lu mu la defal ci alxuraan la la ko defee ndax nee sa ahdi bihi nafsi wa ahdi bi saxbaa alxuraan moo may wan ab yoon sama sama ah, ñi ma àndal ci alxuraan la wane ab yoon loolu nag moo tax sëriñ maam Cheikh Anta mu baax mi doon sëriñ Mahamadou Murtada moom sëriñ Touba di murid saadeex ni ko waxe bu sax mu jiite liggéey bu tedd bi ànd ko jëwriñ sëriñ Xaadim Ngéy mii bokk ci jëwriñ sëriñ Saliou nekkoon ca daara ja ak ñu ko àndal ñépp ñu yittee rek liggéeyal alxuraan ci toolub sëñ Tuubaa bi sëñ Tuubaa moom nee alxuraan muy ab toolam kon xam na nag ku ne ci toolub uh, jëm war na dana la añal dana la dana la sàmm dana la aar kon lu ci waay def rek sëñ Tuubaa nga ko defal ndax alxuraan moom fum mu tumu rànkee sëñ Tuubaa dafa jegewut wala ku xam suñ tubaa jege fa waaye fu suñ tubaa jege wala ak nitam jege fa te xam xam xam ko fu alxuraan amee yitte daraam du ko fekke ndax suñ tubaa ku ma saan bëgg dabu ak bëggam ci lu man a doon alxuraan nga koy daboo daana wax ne alxuraan mooy li nga xam ne ku ci nekk ku ma ciy jëfal boo ko yëgee ak boo ko yëgut gërëm naa la bu daan wax ne ku ci nekk itam ku ma ci làmb danga ma daj faneen fu ma waaye làmb nag mën nga maa daj mën nga maa a daj alxuraan foo ma fa daj kon nag liggéey boobu rek lañ fi taxawal di ñaanal suñu maam si ante yéen yu rëy yi àndal ak jëwriñ yi mu ko àndal yëpp yéen yu rëy am suñ borom mottali ko. mu dem ba bii di ab tàmbali waaye dem ba daj réew mépp ba daj àdduna ni suñ Mourtala yaatu woon suñ Tuubaa ji si bitti yàlla na liggéey bii dem ba yaatu foofu fépp mu teg fa ay daa ay daara taxawu daara ya fa nekk taxawu alxuraan ci barkeb sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullah. ah di jiital ci nuyoo bi ah, kilifa jataay bi. Euh, di sëriñ maam seex mii nga xam ni moom wax dëgg yàlla dama am kàddu mënu wax waaye nag mënu ma ci ñàkk a joxe kàddu kàddu yu seere euh, wa maa sahid naa illaa maa xalim naa wax dëgg yàlla lu mat ñeenti at wala juróomi at ci gannaaw foo ko gisee ca réew ma ci loolu lay dox ci lay wax sonn ci lool ba man mujj na sax ay jamono mu yaakaar ni dafa dafa tegu fi suuf ndax ndax xam feebar bi moo taxan booba waaye booba ak tey jii foo ko séenee ci loolu la ne mbo mépp fépp foo xamante ne fii dem na fa tamit dana ko fa woote yëgle ko fa soñña ko fa loolu laa ne woon moom wax dëgg yàlla moom mën naa ko seere fu ne wax dëgg di ñaan ci yàlla ak yonent bi barke Serigne Touba barke Cheikh Mourtada nga xamante ne mooy mooy mooy mooy mooy waajuram ah suñ borom jàppandal defal ko ci jàppandal koo xam ne jii dana egg fii daaray eh, eh, eh, daaray daaray sëñ bi sëñ sëñ Mourtada ay egg incha allah yàlla mën na ko yàlla ko def barke Sëñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh xam ne nii GIE jàppoo dooleel daara yi dimbali daara yi la ba tey jii ginnaaw li nga xam ne yoon moom la doxee mooy laaj joxe ko ñu liggéey ci ginnaaw loolu itam bëgg na taalibe yi euh, ñëpp taxaw ci nañ liggéey luy jariñ daara luy jariñ sëriñ daara luy jëriñ ndongo daara ndax mbir mi kat li ko tax a jóg mooy daara mooy sëriñ daara mooy ndongo daara mooy mooy wayjuru daara yi te loolu yëpp na bu ñu ko waxee mooy alxuraan alxuraan fii senegal li koy dundal mooy daara yi daara ñoo fi taxawu alxuraan bu fi yegsee fii yàlla ak suñu borom loolu la ko namee ci ñoom la ko jaare kon képp ku taxaw daa taxawu daara yi rek yaa ngi taxawal alxuraan yaa ngi dëgëral alxuraan